te nan tey gërëm di way ak sant gërëm di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara ahousubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin seydina wa mawlana muhammad mbokku téléspectateurs yi seetaan académie Minane TV ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar ñu nekk fii ci Porokhane ku nekk xam ne ne ñu ngi fii ci barab bi jàkkaarloo ak barab bu Seydatuna Mariama Bousso Diarraoulah mi nga xam ne foofu lay noppalikoo ginnaaw boobu buy jeeg li nga xam ne moo di boromam di stand bi nga xam ne wala boog barab bi nga xam ne fi la cérémonie bi nga xam ne moom la waa fondation Mame Diarra Bousso di amal waaye nag tey ku nekk xam na ni panel bu am solo bi nga xam ne moom mooy euh, tàmbali panel yi wala boog moom mooy tëj panel yi ci guddi gi bokk na ci panel bi nga xam ne waa naf si wadi nii di sët ak sët sëtaat yi Cheikh Mouhamadul Bachir ibn Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yi ñoom ñoo koy def fii nii tey doon waxtaan ci thème bu am solo muy réseaux sociaux yi euh, njëriñ yi nga xam ne am nañ ko ak euh, lor yi nga xam ne mën nañ ko am kon xam naa mbokk téléspectateurs yi dañuy ànd ak yéen dugg ci biir wala boog ñu taxaw ni xaarandi ñenn ci ñi nga xam ne seen seen xam wala boog seen taxawaay fës na ci liggéey boobule Euh, ku ci mel ni soxna maam Faati Mbàkke moom sëñ Cheikh Asou xam naa dañ koy bàyyi mu ñëw bu ko defee ñu dalal ko laaj ko ay quelques questions doo ko xaarale ñeneen ci des incha allah jërëjëf mbokk téléspectateur u académie Minane TV comme niñ leen ko waxee sànq soxna maam Faati Mbàkke doom ci sëriñ Cheikh Asou Fall moom Cheikh Mouhamadoul Bachir mu Xaadim Rasul ku nekk xam ko nag muy jàmbaar ci liggéey soxna jaar bi macha allah di jàmbaar itam ci fondation Maam Jaara Bousso rawatina cellule communication bi waaye di fond di jàmbaar nag ci daayira Jaara yi nga xam ne mu ngi ciy def liggéey bu ama am solo kon soxna si dañ lay bàyyi nga nuyoo xam naa tey daayira Mame Diarra yi dañ koy denc daal di ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy euh, teewaay bi nga xam ne teew ngeen ko fi yéen ñi nga xam ne yooyu dañ sët ak sitaar Cheikh Mouhamadul Bachir yi muy waa Nafsi ci panel bu am solo bi nga xam ne ñi ngi ko fay def nii sànq nii daanaka mën nañoo wax ni sax panel bi jeexagul xëy na dañ laa xaw a génne rek ngir mën laa poser ay quelques questions bu ko defee ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo lay seetaan man la Mame Faty Mbacké euh, bintu Serigne Cheikh Fall euh, ibnu Euh, ginnaaw ba ma sante yàlla yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, sant sëriñ Tuubaa Xaadimul Mustafa jaraw lakkal Cheikh Ibra euh, di wax ne waaw ñoo ngi bokk ci benn kuréel bu ñuy wax Nafsi wa Diine di seti sëriñ Basiiru yi di tur woo xam ne sëñ Ndaxa Bachir moo ñu ko joxoon di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér barke Cheikhul Xaadim di tur woo xam ne dañ moom moom lañ ko joxoon euh, mu rafaatale ñu ko ngir bëgg ñu gën a mën a liggéeyal euh, sëriñ Touba gën a mën a liggéeyal Cheikh Mouhamadul Bachir euh, ñun nag ci li ñuy yëngu bëri na waaye forum bii nii sëñ Cheikh Fatma mi ko sëñ Isaaxa teg ci loxoom ci ci la bokk. naf si wa diini nag activité am ci ëpp liñ commencé gum sax laay wax mooy institut bi nekk Tiib. institut bi ne institut bi nekk tiib lañ lañ commencé gum ba kenn ku nekk euh, la nga mën ak la nga mënul ci waa Nafsi wa diini yaa koy boole ngir bëgg institut boobu àgg ak jàmm ndax euh, mooy ndigal li ñu sëñ Muntaxa njëkk a jox euh, te it bi mu ñu koy jox daf ne woon am na lu mu doon def waaye su pare woon ci loolu la jëm donc mu doon ndigal lu rëy loo xam ne ñi ngi ci sëñ Basiiru Tiib moom moo sëñ Basirou bu sëñ Moustapha Basirou moom moo féete tiib moom mooy moom mooy yore liggéey boobu ñu di ko ci sant bu baax ndax wax dëgg yàlla mi ngi cey def lam mën ak lam mënu euh, len leneen li ci nekk mooy xanaa mbirum communication bi mbirum communication bi nga xam ne benn kuréel moom moo ko yore ci biir Nafsi wa Diini euh, sëñ Cheikh Fatma ci la bokk sëñ Modou Bousso bu sëñ Cheikh Fall si la bokk ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne euh, suñ tënkee ba pare li ñuy maam li ñu war a def après ñoom ñoo koy tënk su ko defee ñu daal di doxal loolu mu nekk kuréel boo xam ne daal bu am harmonie la waaw ndax ci ndimbalul euh, Serigne Touba lu am harmonie la ñu ngi ci jéem a kër kër di ci jéem a liggéeyal Serigne Touba. jërëjëf soxna maam Faty mu doon loo xam ne waa Nafsi Wadani ngi koy def comme ko waxee sëñ Cheikh Fatma bokk ci ñooñu nga xam ne mooy sëtu Cheikh Mouhamadul Bachir yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom la sëñ Mountakha jox tur woowu ñu yore kuréel gu am am solo googu ak liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def yëpp macha allah xay na du ñàkk dinañ am ak ñoom jataay gën a yaatu waaye dafay mel ni soxna si tey jii nii am na panel bu am solo wax naa ko sànq ci thème sociaux yi euh, avantage et inconvénient maanaam njëriñ yi nga xam ne am nañ ko ak yàq yi nga xam mën nañ ko yàq mu mel ni yéen la ñu tànn ci euh, di euh, waa Nafsi wa Diini ngir ngeen exposé wala boog wane xam-xam bu am solo boo xam ne dinañ génn foofu noonu kon loolu ban yëg nga ci am ndax xëy na peut-être mënoon nañ choisir ñeneen wala ñu xool ñeneen mais le fait que ñu ne ni daal surtout sëñ Bachir ñoom lañ ko mu doon lu am solo loo xam ne wax dëgg yàlla vraiment ñëpp a ngi ci toog concentré wu ci ndax xam-xam bi nga xam mi ngi ciy génn ak yu am solo yi nga xam ne ñu ngi ko fay def am naa kon dañ lay bàyyi nga ñëw ci panel bi en général bu ko defee ñu doog la jox nga tàggoo. thème bi ñu choisir wax nga dëgg soxna May thème bu am solo la et puis thème la parce que réseaux yi ku nekk xam na ne mi ngi mi ngi defar lu bëri waaye mi ngi yàq lu bëri tamit parce que euh, comme ni ko Djily Ba waxee léegi indi euh, avantage yi ci nekk yëpp muy communication bu gaaw bi njàng mu gaaw mi euh, lien yi muy defar mais. ci loolu tamit euh, mi ngi indi ay inconvénients yu doy waar euh, yàqante der piégeante euh, ak yoo xam ne daal yu yéeme la yoo xam ne ku nekk yaa ngi koy dund waaye nag du tax ñu bàyyi ko ndax feek munoo bàyyi mbedd mi ci biti mënoo bàyyi réseaux sociaux yi parce que mbedd la rek bu nekk ci biir machine ndax dox daje la ku nekk fay daje waaye li ci am solo rek mooy eh, ñu jël fa la fa baax kenn ku nekk sa éducation de base ngay demee ci réseaux sociaux yi su fekkee ne am nga yar am nga teggin am na lu ñu la xamloo si sa bopp ak lu mën di xew soo demee ci réseaux sociaux yi da nga xam fa nga cay yem mais su fekkee ne eh, eh, benn benn benn nit la rek boo xam ne tënkuwul ci dara naka jekk dañ koo mas a bàyyi ci la ko neex daanaka su demee ci réseaux sociaux yi lu ko lu lu ko détourné dafay yomb ndax loo xam ne lépp nga fa lépp nga fa ci sa appareil bu ndaw bi nga yore waaw loolu loolu daanaka euh, nga man faa defaroo yomb na waaye nga mën faa yàqoo tamit yomb na waaye éducation de base lañ war a def ci xale yi euh, tënku ci njàngalem soxna jaara ndax njàngalem moo xam ne moom da ko dund parce que soxna jaara 30 33 ans 33 ans ñun ñëpp am nañ ko donc ñuy te euh, éducation éducation éducation de base bi mu amoon ba nga xamee ne amul sax euh, jotu yenn yi fa seen na ci tënku xam li ko yëkkati xam li ko indi woon ci àddina ba di ba mu koy jëfee ba ni mu fi jógee euh, kon loolu ñun dañ cee war a bàyyi xel lu bëri même suñ màggal seen nii sax ñuy bàyyi xel ci yu bëri yoo xam ne nit ñi dañuy dem ci teen yi kër kër joo metti joo xam ne doo concentré wu sax ci li nga xamee ne moo waraloon kii ñu di ko topp ba tax ñu ñëw fii di fi màggal si mooy que ne soo demee ci teew teen bi teewlul kii nekk ci kii nga xam ne moo tax ñuy wógg si teen bi di ci barkeelu ci yan at la ko doon defee il faut que jeunesse sa fas du waxu du waxu dara waxu yàqkat la parce que yow sa jeunesse si nga mën a defaree sa àddina léegi suñu la jeunesse boobu ni nga koy defee mooy dangaa war a foo bay am yenn âge doo a jaamu yàlla soxna jaara weddi na loolu ay jëfam weddi na ko donc ñun ñàkkuñu référence donc il suffit juste que ñu jéem a xool kenn ku nekk li lay yëkkati kenn ku nekk ki nga ne moom nga gëm nga bàyyi ko xel tuuti su yàggee tuuti di nga xam yow fan ngay teg say tànk donc kon loolu panel bi loolu daf cee daf cee daf cee am solo loolu daf cee am une grande partie boo xam ne moom moom dañ ko cee war di bàyyi xel. naa di sant rek di sant euh, bu baax a baax a baax a baax euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne euh, moom laa xam <laughs> mooy mooy sama lépp. di ko ñaanal mu yàgg fi lool ci wér barke Cheikh di ñaanal sa Serigne Cheikh suñu borom dolli ay leeram taal suñ ci barkeem ak sama waajur bu jigéen yi nga xam ne dafa génn àddina yàggul le 14 janvier bi la génn àddina di ko ñaanal tem doon tem doon bay faalu soxna jaara moom la doonoon bu bu yéeme sax boo xam ne xëy na euh, bëri na ci loo xam ne su fekkul woon ne moom nekkoon na Baye Fallou Soxna Jaara ma jug di doxin yenn doxin yi su ma amul woon ak ndëgër laay ci moom kon bàyyi naa ko bu yàgg kon dama koy ñaanal suñ borom seral suuf ci kawam gisale ko sangam bu tedd ba Serigne Cheikh Asfal mi mu liggéeyoon li mu doon liggéeyal te gëm ko lool daal di daaneel suñuy kàddu di sant bu baax tey gërëm yéen ñëpp ci liggéey bi yow soxna May wax dëgg yàlla boobu ba léegi yaa ngi ci sonn ci lool nag wax dëgg yàlla yàlla na la Serigne Touba doole taxaw ñoo ngi sant bu baax tey gërëm. jërëjëf uh, soxna di ko sant bu baax a baax ci lu am solo loolu nga xam ne wax di ko nag ziyaare way juróom bu jigéen woowu nga xam ne dafa làkku comme ni mu ko waxee di ñaan suñu borom uh, dajale ko ak xam naa mbokku téléspectateur académie Minane TV dañ leen di tàggu rek ci kanam tuuti incha allah dinañ ñëw ak yéen ci yeneen i programme incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaye tollu neel amiin ngir mu baawaan ngir mu am ngir mu jëf ba sant fi jaaraay jërëjëf rabbuna jaraw lak baali hakada cheikhina alqadim doomi jaar